yaa ngi yaa ngi hardcore instant. <laughs> waaw mooy loolu. dala dala baby. ok what's up. what's WhatsApp exito en tout cas bëggee naa la kontaan naa la yow moom sama waaw mooy loolu. woman show raconté ma ci tuuti. waaw Women Show bi à la lii moo nekkoon programme bi mooy culturel bi euh, ñu def benn festival bu mag boo xam ne géej yi rek ay woo fi may rappeurs yi ku ci nekk ñëw wane sa bopp wane da nga mën wane da ngay def xam nga talent yi bokkul. si euh, jab yi bokkul yi bokkul ku ci nekk yaa ngi yor sa rukk loo xam ne boo ko génnee dinañ ne waaw. voilà yii da si baax ñuy wane ñuy xam. voilà <laughs> yaa ma gën a xam. looloo nekkoon pour woman show bi mais voilà. comme vu que léegi def nañ ko mu jàll dañ ko nar a def festival mu jàll jàllaat après boo woowee ñii beneen année bi nga woowaat ñeneen waaw. en tout cas mu nekk lu nga xamante nii doole moo koy def gëm-gëm moo koy def te yow da koy def parce que yow borom fit nga loolu moom mooy loolu but Queen Queen <laughs> Queen <laughs> nga dafa am lu spécial yow. mooy soo taxawee ne Queen bu ñu gisee Queen. Mm. non da xam ne kii she de the queen. ah loolu jarul wéral tey boo dugg see xool di nga xam ne maa xare yi bokk ñëw. Hmm. <laughs> mais lan moo la may lan moo may vibe boobu noonu jàpp boobu noonu. déjà ma dem am sama propre style. voilà toppandoo ma kenn dugguma ci kenn lépp lu ma def rek damay tëdd mu nekk sama maay bu ma yeewoo ma ne tey lii laa bi def loolu laay def bu ma ko defee day jàll que mu set que mu tilim voilà noonu la demee. en tout cas mu nekk lu nga xamante ni artiste daf ko war a am te yàlla may na la ko mais tey sa rapport ak Fatim ba nga agsi si euh, festival culturel bi lan la. waaw Fatim déjà primo ñun dañ koy shout out di ko gërëm di ko sant parce que li mu def yombul dajale ay nit dajale ay gel dajale leen pour ñu wane naka la lan la ñu mën seen mën-mën yombul parce que man jaar naa si gis naa ko des naa sama woman show gis naa li voilà quoi ci dépense ci wala quoi yombul mais moom ku baax la vraiment muy sunu mag euh, mu yaatal ñu wooñu ñu ñu ñëw waa jàpp ci wala dooleel ko loolu mooy yoon te moo ñu war sax nag te du yam fii dañ koy def ay année année année internationale wu teew lu mu ci munti doon waay. en tout cas loolu moom da koy soxla déjà parce que. suwote yéen tamit ngeen yombalal ko affaire bi da fay nek lo xamne day nice but lan lañ wara a xaar fële tay génn ay këjëng këjëng yoy non parce que xamna dala dara mo ay jam la ya man en tout cas bëggee na la xam la laa bëgg waxal ma dala dala lovers yi ñu dem abonné ci chaîne Mindset Mindset my old Team Dollars, Queenie, Dollars, Dollars, Miss Chocolatey, Dangerous Girls and Boys, them and abonné ci chaîne bi yeah man you know moom moom mooy loolu sama sama nit la boroom jàpp la you know what I mean and voilà quoi she's beautiful mindset ba léegi nii fiir biir DTV festival culturel dijjëndi naa mooy xoosal gel affaire bu xatta faye gen dafa xolama dijjëndi naa yow xolama dijjë <laughs> mais nii naa waaw waar damay kontaan ci gis la ndax sa liggéey bu set you know tey nga teew fii war a gérer show euh, yaay boy, show bi lan ngay feel euh, man damay juste content, parce que festival culturel la maanaam el bi mooy jigéen te man je suis très fier de di di nekk ci ginnaaw platine yi am jigéen bi rab ci kanam juste fier waaw en tout cas loolu mooy déjà kon yow tamit da am passion ci li ngay def you know what I mean mooy loolu mais tey en tant que DJ DJ boog. Oh, DJ di xoos affaires yi. génn Sénégal ñëwaat di def ay affaires. lan nga mën a wax tey partagé ko ak say sœurs yi nga xam ne ñoom bëgg nañ nekk DJ mais xamuñ par où passer wala boog xamuñ comment s'y prendre. ok euh, bon juste juste man li may li ma yàgg wax la affaire bi liggéey la am sa fulla am sa fayda xam li nga bëgg. loolu kese la soo jógee pour def lii tu le fais après nga jàll ci leneen bul ut dara tour wala dara après tour moo lay fekk si yow doo dem fekk si tour doo dem fekk si xaalis xaalis mooy ñëw ci yow tur mooy ñëw ci yow xam nga juste liggéey la amul dara lu ñuy nëbb wala lam-laame amul bras amul këre liggéey la yeah liggéey la work hard play hard you know what I mean donc loolu la mais tey Je nga d'accord yaangi ci euh, mouvement culture urbaine yaangi ay affaire donc yow yaangi ci diggu mais ce rapport avec Fatim bi nga festival eh, Fatim suis sama yaay Fatim Fatim moy sama yaay bu ndaw <laughs> parce que man xam immature des fois damay damay déraper <laughs> xam rek ñew taxaw na ma eh li ngay def xam nga té dama koy def duma ci si sax baat parce que xam naa ne tout ce qu'elle fait tout ce qu'elle me dit xam naa ne ci lu baax la jublu loolu tax lu ma munti wax wala duma ma si teg baat en fait maanaam sama yaay bu ndaw laa koy woowee moom moo may teg si code quoi. yes en tout cas loolu am na solo parce que nit ku nekk moom yàlla am na ku mu lay booleel mais xam naa duñ la téye parce que mm. affaire yi léegi mu commencé. Mm. mais just rek tey. nga soo doon wax hip hop Galsen yow en tant que DJ. nan nga soo ko doon defal benn inventaire lan lay doon. hip hop Galsen. waaw. <laughs> inventaire. waaw. <laughs> yéen a bëgg dugal. <laughs> non xamal tax ma lay laaj lool xamal tax ma lay laaj lool parce que dama xam ne ci musique ngay dox suba ak ngoon. you know mais dafa doy waar de. Mm-hmm. waaw mais bon. gars yi ñu ngi ñu ngi avancé ñu ngi kii instant bi ñu ngi ci ay 60 60 pour cent waaw ñu ngi kii daal ñu ngi avancé gars yi daal nañ nañu rab ko man daal lool loolu rek moom loolaay kii nañu rab te bu ñu rus di jël suñuy instrument ñun Sénégal di ko si dugal parce que à chaque fois damay dégg di rab mbalax rab mbax xaw ma rab mbax xaw ma affaire yooyu loolu suñuy instrument la nañ ko si dugal loolu yàqul dara ci rab. man am man sama Avi man perso yakul dara si rab sabar gi nañ ci dugal tama gi dugal dugg ci biir waaw ritam ritam balla bi nañ ci dugal voilà man mom lepp musique la musique ben definition la am te li ci sabar bi amna do re mi fa li ci tama bi amna do re mi fa clavier bi pareil rap mbalax amul nañu jël suñu instrument bop sénégal ñu duggal ko ci suñu rap ñun ñu am identité loolu kese la. en tout loolu am na solo identité musicale loolu lay représente ma man DJ <laughs> nii di place ah, to be léegi dama bëgg nga wax ñi nga xam ne ñoo lay follow sa fans yëpp hip hop lovers yëpp ñu dem abonné ci chaîne Mindset. waaw abonné leen rek yàqul dara bës <laughs> foofu nga ko yemale. <laughs> en tout cas kontaanee nañ la bu baax. di la show much love and respect you know. Respect, respect. Mooy loolu. waaw Thank you. Yes. Some Alex, some Alex, eu tenho certeza que ela

Legend stars in my gut money Love to rival Money I'm okay 사랑의 ambish like 센세이야 I'm a dangerous guy I'm a dangerous guy I'm a dangerous guy 버텨이 네가 bitch got down 내 꿈아 I'm a dangerous guy I'm a dangerous guy I'm a dangerous guy 버텨이 네가 bitch got down I'm a dangerous guy I'm a dangerous guy I'm a dangerous guy 버텨이 네가 bitch got down I'm a dangerous guy. I'm a dangerous guy. I'm a dangerous guy. But say they got bitch, you got time. Baby, goodbye, but you keep on.